li waral daje bi nag mooy dégg lu ñu naqari dégg lu ñu naqari googu nag moom la ñuy ñaxtu bëgg ku ñu jàppale mboolem ñun ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom daal ñun ñoo ngi ni fas nañ yéene nag nekk ci ginnaawam tey ba ëllëg fu mu jëm lan jëm lu muy def la ñuy def lu mu wax la ñuy wax ndax ñoo ngi ànd ak moom lu man ñeen fukki at te amuñ ci moom lu ñu naqari mus la am mus la am tey rek lañ ba am ci moom lu ñu naqari ñu bëgg nag. loolu dañ ba set wecc sans borom delloo ko ci fi mu nekkoon te affaire yi defe naa nag dana ci naqaree dàq nag ndax moo ko sampoon ñi mu àndaloon di ko def ñu ngi nii toog kenn wallewu ko ñëpp ngi toog kon loolu ku ne xam na ne moom moo moom moo defoon affaire ba muy campagne moo nu na woon ñun ciment lañ rek benn yoon la ñuy tooyee benn yoon boobu ñuy tooyee nag Moustapha Sey loolu loolu xam ci moom gore ak jàppalenu ak dimbalinu kon lu mu nekk noo nga ca lu mu génn génn nañu ca fii ku fi taxaw rek jox na la sa cër ñun ñi ñëpp moo di yóbbu màkk dellu sinu euh, Modou Birame Diop membre coalition Madické 2019. doon solos ndaje ji mooy benn objectif rek la mooy euh, xoqatal ak néew doole gu ñu bëgg a def suñu wëllëree Moustapha Cissé Lo te li ñu gis ne moo ko waral muy digganteem ak ñaar ñi ni soow kenn ki di far Farba Ngom kenn ki di Yakham Mbaye liñ ci xam bari na suñ ko waxee mën naa tasum réew te far ba ku nekk war wut exemple ba mu des moom du moom ku ñuy wut exemple ci moom parce que bu dee président Moustapha Cissé dama jëlee la li mu def ci département de Mbacké mais li mu def ci Sénégal kenn ku ci nekk teg na ci bët benn question rek laay laaj Farba moo di que ne dossier bi nga xamante si ne moom ak Mame Mbaye Niang ñoo ko séqoon ci ci département de maatam nga génn leeral askan bi leeral département de Matam dossier PRODAC boobu 5 milliards yi fan la mujjee parce que am na lu ca am président de la république Macky Sall xam na loolu kon ministre de la justice war na ca def liggéeyam ba ca topp moo di machine yi nga xamante si ne mooy machine yi pompe yi ak machine val yi nga xamante si ni dañ ko mayoon population bu maatam moom Farba Ngom moo ko détourné bàyyi ko fa ba machine ya yàqu demul ci aw askanam kon kooku du exemplaire du koo xamante si ne dañuy jël ci moom exemple te lii waral coow li kenn ku ci nekk di ci wax yàgg naa am mais kenn waxul yàgg naa am ñu bari taxaw di arbitrer arbitrer googee nag tey match bi dafa dépassé terrain bi ñu ko daan footballé dem ci stade stade bi mu dem nag ki war a arbitrer ki war a atte eh, ki war a dem xooli VAR na dem xooli VAR te atte mais su atte it na ko teg ci dëgg parce que kenn ku ci nekk ci ñun ministre de la su ma war a atte ak procureur mais at procureur bu mag bi mooy président de la république mag Sall. li ñu teg ci kaw honorable Moustapha Cissé Lo ànd ñu ci tey ànd ñu ci ëllëg te duñ ci ànd ba ilaa yu diini coow day am ci kër borom kër bu ñëwee day woo ñu ko séq ñu la problème bi mais ay nit bokk coow lu ñu waxante ci seeni téléphone nit divulgué ko lijjantiwuñ loolu lu dul jekki-jekki dàq nit ki injustice mënu ko paase te damay interpeller monsieur le président de la république monsieur Macky sàll ba ngay ànd ak Moustapha Cissé Lo gisoo Farba Ngom gisoo Yakham Mbaye ba ngeen di ànd di tëb miir di seeti sëriñ si mu jël alalam ngeen di ànd gisoo Farba Ngom gisoo Yakham Mbaye kon bu ñu demee ba bokk parti parti bi taxaw mu liggéey ci lim ci liggéey Moustapha Cissé Lo du Sénégal du Touba Moustapha Cissé Lo àdduna la loolu na leer te yow nag dañoo bëgg nga ñëw wax li nga war a wax rek la sa kër dàq bi ànduñu ci tey ànduñu si ëllëg lu waral ñoom ña bu ñuy dàq kay nañ leen dàq ñoom ñaar ñëpp parti la coow nañ bu ñuy dàq nañ leen dàq ñoom ñaar ñëpp wala ñoom ñett ñëpp ñoom ñi nga xam te ñëw bokk mbir mi muy Moustapha Cissé Lo di Yakham Mbaye di Farba Ngom su ko defoon dañu ñam lu ñu naqari mais yow nga ànd ak nit ba dara du dara da ngay xeex injustice parce que Macky Sall loolu la ñu waxoon ni damay xeex injustice mu ànd ceeg Moustapha Cissé Lo mais dañoo gis ni bi mu commencé wax ne jiw yi nañ ko teg ci yoon ku ne li nga moom nañ la ko jox ba tey la problème yi commencé kon nag monsieur le président lii boo ci seetaanee yow sax yaa ngi dugal sa bopp parce que day mel ni kon lii yënga koo pare teg ci sa tànk te ñu lu dul dëgg duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg injuste bi d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg ñun nekk femme développement GIE de Touba ñoo taxaw fii muy Daaru naan di xayra 1 ba 6 di Kër Ngunda ñun ñëpp ñoo ànd taxaw parce que nag bi ñu jógee taxaw ni femme développement mënoon nañ bu élection jotee mu yëkkati ay millions jox ku ne junni solo la mbubu ñu dem yuuxoo tàccoo mais defu ko daa dugg ci commune bi xool jigéen ñi xool góor ñi xool jeunesse bi ku ne mu xool lu mu la mën a dimbalee mu def la ko ba ñun ñu ñu ciy liggéey di ciy tedd jigéen ñaa ngi nii ñi war a dem màkk yóbbu na leen màkk ñu yor ay doom yu taxaw na leen ñun jigéen ñi jàppale nañu kon nag kuy xeex injustice ba yam ci lii war nga cee taxaw euh, damaa bëgg rek mu fàttaliku tuuti démb xam ne bi àll bi ne tàkk kenn ñi mu ngi fi siiseloo moo xuus jàll jàllale ñëpp ndax 2012 euh, moo tax président réussir euh, mission euh, élection yi passé bu dul woon Moustapha Cissé du dem deuxième tour yooyu ba ñu nee assemblée nationale bañ ko fa dàqee ba mu gestoo Cissé Lo daa wàcc la mu la mu amoon lépp topp ko ndax ngor yooyu yëpp nag dama bëgg mu di ko fàttaliku te booba ba ñuy xeex di ànd ak moom ñii tey di ñëw di di ko jaxaseeg président booba ñoo ñuy sànni xeer ak di ñu xëpp suuf présidence isolée mooy APR ñun gënuñu APR day gënuñu APR ëllëg Macky Sall na woo grand frère am xam ne lu ne sëq na ko ak moom ci teranga lu ne sëq na ko moom ci ak su demee nii ba saytaane dafay nii mu defee waxtaan rek mooy solution mais dàq du solution mhm. foog naa ne nag li ñu war a mooy APR bëriwuñu bëri nga xam ne war ñu mën a nekk di dàq parce que amul njariñ du jural kenn jàmm mhm. ñun waa Touba daal ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci région de Diourbel ñu ngi ci ginnaaw président Moussa Cissé Lo ànd ci lépp loo xam ne bëgg-bëggam la lépp loo xam ne mu ngi koy dugg ñu ngi ciy dugg ànd ak moom lépp lu mu nekkul nekkuñu si ñu ne ay ndaw lan te moo ñu xamal lépp defal ñu lépp kon su dara dale ci kawam duñ ci xaar kenn dañuy jël suñu engagement wax ne lii ñu defee ci mu ci parti bi ngir yaa xam bay jaru ko parce que yaa xam mbay waruñu ko jëndee Cissé Lo Cissé Lo du morom yaa xam mbay Cissé Lo li mu représenté ci monde bi yaa xam mbay représenté wu ko Farba Ngom na wax ay waxam na xamul biram wax na ko bëri na erreur yoo xam ne wala ay détournement yooyu na ci suuf ak yaa mbay parce foog naa ne jëm Sénégal karam ndax Cissé li ko ñor rek mooy Sénégal jëm karam ku ne am gis sa bopp ci li nga xam ne noonu réew mi di doxee te mu tege ci dëgg